Maintenant, quand tu me dis que moi je me positionne comme le ministre d'une partie de l'APR, moi c'est faux. Je suis pas d'accord. Au contraire, je ne suis ñu bëri dañu may mere parfois parce que dañu naan oui Pape Malick il s'ouvre trop à de nouvelles forces etc. Parce que ces jeunes-là qui me fréquentent et qui sont très souvent euh, au ministère mais c'est des gens yoo xam ne bokkuñu si benn parti quatre des personnes qui ont été mobilisées aux parcelles pour parler de programme xëy ndaw yi c'est des yoo xam ne man xaw ma woon deux mois wala trois mois auparavant c'est des yoo xam ne dama leen xam parce que j'étais dans l'exercice de mes missions et ils ont pensé qu'ils pouvaient donc faire appel au ministère de la jeunesse pour pouvoir au moins bénéficier des programmes et des politiques publiques bi nga xam ne état moom lay mettre en place demal ministère je man je je ne dis pas que je le seul ministre mais moi j'ai le courage de faire une note de service et de dire que les audiences publiques du ministère de la jeunesse audiences sans rendez-vous se sont se déroulent euh, euh, les jeudis tey soo ñëwee jeudi ministère de la jeunesse 8 heures ba 23 heures wala ba minuit tu verras des jeunes yoo xam ne amul kenn kuy présenter carte APR pour mu ne damay fekk ci des jeunes comme ça. que je connais pas qui ne me parle pas de politique. politique baa ci suuf xaaral non xam nga man damay wax. ma ne tout ma ne politique politique baa ci suuf xaaral rek dama wax xam nga may mën a. politique baa ah, wax li may def c'est-à-dire mécanisme yooyu xam nga c'est pour capter un électorat. xam nga waa xaaral xam nga tey da nga ma ne ministre politique ministre politique mooy ku toog su ñu la nee man damaa contre Macky Sall mu tegal la ci xas tegal la ci saaga ne la doomu la recevoir kuy wax def loolu du bind note de service affiché ko ministère am publiquement ñu bind ci képp ku bugg audience publique sans rendez-vous da ngay ñëw jeudi jeudi laa jël consacré ko journée 100 pour cent de 8 heures jusqu'à 23 heures wala minuit je l'ai fait depuis longtemps maa ngi koy def soo la neexee man maa ngi lay défier FIFA dama lay défier nga envoyé reportage au ministère de la jeunesse les jeudis tu verras du tout tu verras des charretiers tu verras des jeunes yi nga wax nga xam ne il y a des gens qui me disent mais président waaye Pape Malick man li ngeen di def lii ak lii ak ma waxtaan ak moom après mu dem et la preuve après la manifestation bi passée on a eu écho que y a des jeunes yoo xam ne ils sont dans le programme xëy ndaw yi yoo xam ne dañu ne ñoom dañu doon manifester waaye loolu man maa ko yor su fekkoon politique moo man lal wala politique laa def damay jël poste yooyu jox ay poste yu manifester à l' assemblée nationale Guy Marius Sagna posé na ma fa question boo xam ne manifestement ñi porté revendication yi ba mu koy jël di ko def question donc pour vous dire man je réfute cette thèse moi je suis un ministre de la République qui se comporte comme un fonctionnaire d'abord de la République qui prend les pouvoirs et les politiques publiques teg ko ci benn pese beneen PC bi mu teg ci toute la jeunesse du Sénégal donc devant moi les jeunesses sont égales jeunesse boobu munti bokk mu nekk jeunesse ouvrière jeunesse politique jeunesse boobu munti jël maintenant nag vouloir diaboliser une personne en le boo xam ne il est là juste lay def